daa yoo xam ni ñi ngi wax am nañ ay yeneen nationalité ñu ne bu ci révélation amee dinañ ko repréciser daal di defaat beneen liste je pense am na considération euh, mine Daouda ah voilà tout à fait mais ñu bari dañu doon njort ci double nationalité yooyu da ci bokk Cheikh Tidiane mm. ndax sa jaar-jaar ci Suisse alors alors est-ce que nekkul fuite en avant mm-hmm. décision bi nga jël parce que nekkul fuite en avant. balaa ñoo génnee mbir mi bala ñoo génnee mbir mi wala dara. parce que ci ñi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi am naan naan ci 19 candidats yi bari na ci ñoo xam ni am nañ beneen nationalité bu dul exclusivement. Euh, sénégalaise mm. euh, ci considerant yooyu. ma dégg ci loolu. ma gis acte bi wax naa ci li ma xalaat ci introduction bi. Mm. mais aussi mën naa ko jàppe fuite en avant. Mm. lan nga ñu mën a wax ci sa diggante euh, Suisse ak beneen nationalité. jërëjëf xam nga xam nga. loolu bokk na si li may gën a reeloo ci ci processus politique bi xam nga bi sama candidature jàllee euh, waa Borbale Jom euh, Amadou Ba dañu def recours ci man ak joomaay waaye man man man euh, sama recours ñu ne ci dama bokk ci Pastef donc mënuma jàll ainsi de suite lu ne ñu def ko ba ni sax ni maay président conseil départemental bu Ziguinchor loolu sax ma ci doon reer ni bu bu premier ministre Sénégal mënul xam kii conseil départemental Ziguinchor tey mooy réew mi am na problème bu rëy a mais jamono jooju dama déggoon ñu ni ñoom ñu ngi gëstu ci sama nationalité française jamono ji may def conférence de presse française bi laa déggoon ni ñu ngi ciy gëstu bi may def conférence de presse man maa leen ndekkee orienté ci sama wax te dama doon fo ma ni bu ñu amoon xel du ñu ma xool booru France Suisse laa jànge def fa ñeenti at inscrire doctorat ñibbi si Sénégal di dem chaque anne di def samay recherche di dellu si ba ma jeexalee sama doctorat ma delloo seen kayit ñibbi si ma ne kon foofu ma def ñeenti at xanaa fan fa lañ demoon waroon seeti ñaar wala ñetti fan lañ ci teg ma dégg ñu naan ñu ngi may gëstul wàllu wàllu Suisse ma ne waaye yéen xanaa kon sama wax ji moo leen fa orienté mais Papa ngañ pour tontu la ci lu simple man Suisse 97 laa fa njëkk a dem pour jànge ñu may ma bourse 97 ma dem fa mënuma inscrire mu doon épisode bu bu important ci sama trajectoire parce que. bañ ma mayee bourse bi université Gaston Berger de Saint-Louis dañ ko mettre compétition ak sama yeneen ni naataango ñu ñu xool sur dossier ma jël ko mais université Gaston Berger de Saint-Louis dafa amoon ay ay ay malentendu incompréhension ak université de Genève ndax diplôme ba ñu doon wax moom nga war a am pour dem ba may dem. waa Saint-Louis dañu defee ni am naa ko ba noppi mooy licence. dama am licence. dem homologation du euh, coowal homologation amul woon jamono yooyu. problème yooyu la woon ci diplôme. Mm-hmm. ma am licence Saint-Louis dem maîtrise def sama maîtrise ba cours yi jeex ma am certificat de maîtrise waaye defaguma sama mémoire. Genève bi ñuy bind dañu ñu ni pour nga inscrire diplôme ba may inscrire da ngay am licence. Université Saint-Louis ni ma comme am nga licence ba noppi te inscription jot na demal nga jàngi bu école tëjee Genève nga ñibbisi daal di soutenir sa mémoire dellu. ndeke ñoom seen licence mooy suñu maîtrise complète mhm. booba téléphone yombul mhm. bi ñuy découvrir ni am na yooyu malentendu bi fekk sama papa jëndal na ma billet ba man maa ngi Dakar di jël sama avion di dem ba ma demee ba yegg ci la ñuy gis ni mënatuma woon inscrire mu am ñu ma ne tey ngaa toog Genève Suisse dem defi Moodu Moodu ñu ni ma demal Italie wala yooyu mais dellu Sénégal kenn xalaatu ko woon ci ñi ma waroon noonu ma leen mënu du ma ko def jamais de la vie dama ñëw pour jàng si sama dama am dama am trajectoire dama am yéene dama lu ma fu ma bëgg yegg ak sama réew lu mu métti métti damay dellu si et sama papa à l'époque bi ma ko woowee wax ko ko mu ni ma dellu bul fa wax bul fa def euh, lii sa destin la boo ñëwee boo yeggalee li nga yeggali di nga delluwaat dans les meilleures conditions je suis rentré donc ba ma fa njëkkee dem 2017 inscrire moo fa aw ma fa kayit ma dellu mille 2018 inscrire am permis de séjour 98 am permis de séjour def fa 4 ans def sama diplôme ñu recruter ma fa ci liggéey ma liggéey fa centre international pour le commerce et le développement durable ñoom ñoo ma yebal fii ma ñibbi si à Dakar ak l'ONG Enda Tiers Monde bu ñu bokkaloon benn programme ni ma naa ñëw liggéey la ma doon liggéey Genève ñu ne ma ko naa ko ñëw liggéey si fii. Mm-hmm. moo tax bu may wax sànq ni man politique li tax du ma ci def calcul lu tax du ma ci naan bu ma amul nangam yàlla moo ma suturaale loolu bis bi ma wàccee fii Sénégal di liggéey si dañ ma yëkkati yóbbu ma sama appartement centre ville. yàlla suturaal ma même sama salaire du ma ko fi wax bëgguma kii mais c'est pour dire que lu bari du fëq sama bët ndax jaar-jaar mais sama humilité ak sama éducation tax duma ci mën a wane dara. mais Suisse ba ma def 4 ans ñibbi si Sénégal Suisse tant que defoo fa 10 ans fukki at mënoo am seen kayit même boo fa takkoon jabar. d'accord boo amul fukki at. te fukki at yi mm-hmm. ñetti at yu mujj yi mm-hmm. il faut que nga résider fa d'accord intégralement doo fa jóge li nga wax leer boo woowee ambassade de Suisse fii ci Dakar tout à fait danañ la jox këyit yëpp pour wan la nationalité donc man mm-hmm. benn nationalité laa am d'accord muy bu Sénégal ma juddoo Alwaar ca Ziguinchor samay waajur juddoo Kër Sambakan gii ci Bawal samay maam juddoo euh, Gandiol man kon Sénégal au nord au milieu ak au sud mooy sama identité de sénégalais sénégalais maay Sénégal ah Cheikh maa ngi lay maay Sénégal ay maam yu jóge Gànjool ñëw Bawal Kër Sambakan Baba Garage ceeb zone boobu yëpp di fa béy di fa jàngale alxuraan nekk ay commerçant samay waajur juddoo fa dem nekk ay commerçant Ziguinchor yàlla defal leen fa sutura ñu dëkk fa ba ma juddoo fa kon Sénégal yëpp laa boole sànq bi ngay wax Ousmane sonk looloo looloo ñu boole dañu bokk bokk Ziguinchor. Mhm. ci juram bu jigéen. ñu bokk foofu bawol parce que xombal la jóge waaye ñu bokk paal parce que man famille yu maam rawaan ngom dama ci bokk am ci ay mbokk yaayam am ci ay mbokk mhm. mais loolu seen yàlla yàlla moom moo ko def loo xam ne lii suñu destin la lu ñu fi fekk te duñu ko xalab dañu koy utiliser comme ciment buy gën a dëgëral parce que dañu jàpp ni yàlla boole na suñu destin pour le Sénégal ndax dinañu nekk président wala duñ ko nekk loolu yàlla noppi na ci ba ba noppi lii ñu gis mooy. non Cheikh yàlla dafa ni Bassirou Diomaye mën na koo doon dañ koy jàppale rek. pour mu doon ko incha allah yàlla yaa ngi koy wax lu bëri ci sa ay kaddu. dafa am solo non ëpp na solo ëpp na am solo.